ma kan ada ya, ah xanaa dal ndax damay fanaan ah mais tamit nag ah ji kañ koy xib ah ah wax mais tamit dafa yow fi sa temps yow fi da ngay rek dem xanaa balaa ngay dem di nga naan lewal ah dafa yàgg de baax loolu bi yàgg na de ataay géej yooyu ñu daan def loolu yàgg na passé na ataay kilifa nga koy def ku nekk ba di rek ah dara rek nga wax ay Euh, ça fait nag ah. maam lu ma la waxtaanal balaa may dem. Hmm. ba jàmm. jàmm la du jàmm xam nga rek. Hmm. kër gi moom yenn saay mu yëngatu. Euh, sa doom ji daal fan yi moo wëlbatiku xam nga wëlbatiku. Hmm. nit yooyu xeesoon ba mu yàgg ñu ñuul. moom la kinne def. kinne de léegi saay buy tëdd day tëdd ak jiinam wala mu tëdd ak blousonam wala ma tëdd ci kaw mu tëdd ci suuf. tere la boppam complètement. kinne si boppam. Kiné def loolu. ak Kiné moom xam dafa dof. waaw xam nga nag euh, loolu ya ñuy wax xale bu xam xale xamul yàlla waaye xam na yar. Mhm. am ñoo xam bëgguñu dëgg. ndax Kiné dafa yaakaar noonu rek dafay ñëw ci kër gi rek tëdd. lekk naan sinap sañse doxi soxlaam ñëw ma ne ko nag ma ne ko nag loolu du sëy boo bëggee sëy am doom yi barkeel ci kër mhm. da góor góorgóorlu ci biir kër gi fóot kenn warul wax da nga koy def di raxas di passé di foot di bale di ma togal may lek lolou lañ wax sey way seydou du sinab ak tëdd ak euh, bébé ak yooyu noonu du sey lolou dal la doon waxtaan ak mom ci waxtaan ni rek nee da ko mer nonu mu gis bopam <laughs> nee da ko mer nonu kéro ma ngoy ko xam sax <laughs> dal en tout cas euh, ma dik mhm. li ma wax dal lu la te du bari mhm. gis nga seyu góor ñi ñooy muñ. wallaay dëgg la. loolu muñ benn yokku ko waaye nag ki ne nag daa juum def na erreur <laughs> xama benn affaire mhm. ci kàttanu yàlla. Mhm. moom du ko toog waale. <laughs> Ah, suba déet naa ko xam nga lu tax. dafay mel ni damay boole. ndokk te xam nga ni man sama lépp nga. yow amul lu ma lay nëbb lépp lu ma fanaanoo bu ma bësetee naa la ko wax. li ne da ngay bay ma dem wax ak nak sa nak lu upp nak tour ko ma sañon boko ja wax dara. gis nga tek gu bari. Mm. Mm. mën na jur lu ne. bo de pat te waxo dara te fajulo bu yagge mën na jur lenen bay ko sama loxo. ximal ataay ok bay ko sama loxo. ximal ximal ximal xel gu ma xana nga ñamal ma bay ximal rek ay ñamal ma am nag ñamal ma rek am ñamal ma rek. doo sama rob xanga man mom suukar dama sey ay mm. eh ñam laa la wax. waaw damay ñam. déedéet yow xam du ñam nga wax. yow xam naa la bu baax yow ban ma sax yow jamonoy xale moom bu leen a ñam rek guug nga kaas. damay ñam. mooy ma dégg. waaye ma ñam. nii nga ñame. waaw yaa ma ñam loo di bu baax. gis nga boo jeexalee kaas gi. waaw du ma dem. Hmm. gannaaw am problème. moo la gën. moo ma arrangé bu dem. <laughs> déedéet waaw bu ma ñamal. <laughs> xam nga xam nga man dama am jikko itinéraire te dama ko nëbb. xam man xam naa la yaa ma ko waaw. yokkoo suukar. nga sugar, yokkal ma yokk sugar, yokkal sugar, hmm. waaye ni nga ñeme <laughs> ah baax na comme ñam naa ba noppi maa ngay dem déedéet da ngay xas xelil na ñam naa ba pare bàyyi ma dem waaw may ma lool nag ah, baax na da jàmbari <laughs> Modou waaw Mbaye. ah. bi waaw xoolaat nga fi ñu andi samay nawlee fi ne de moytu ma gàcceel de. non du ma du def loolu noonu. <laughs> xam nga ma xam naa la. bu baax a yem ca fa ñuy daan yem yem rek <laughs> waaye fii nga ma eh. dugal nii. Eh. fii de mooy nomade. restaurant bu chill la restaurant bu cool la. Ah. restaurant boo xamante ne la maanaam lu ñuy jaay sell na neex na. te it calme na quoi tranquille na mun nga fi ñëw sax liggéey. en toute quiétude quoi kenn du la dérange. waa commandé woo fi dara rek. commandé naa kay. ëpp naa def. la ndawal xam na da bëgg ndawal. ndawal la ndawal mel. mu da nga yor loo lekk bay commandé ma defe ne ndox mi nga commandé pour ñu cee naan di waxtaan naa la ak yooyu. dama xel daal bu la neexee nga commandé resto bi man koy fay. merci beaucoup F lii est-ce du ñee. déedéet pour fii lii. man maa ko commandé. ku koy fay. man maa koy fay. Mourou te nga laal fonde. <laughs> te nga commandé fan fii suñuy nawlee fi ne de. waaw yàgg nañoo lekk fonde nag mais des fois day baax ñu changé tuuti ñëw si yenn bërëb yu mel ni gàcceel da doo mës gàcce incha doo mës gàcce. Eh, nu mu tudd ndaw si kële taxaw madame mooy fay Moodu Moodu mooy fay man maay fay waaw moo ne ci carte d'identité Moodu waaw Moodu Moodu man maay fay la neexee restaurant bi yëpp mën naa ko jënd <laughs> eh, yow fu la xaalis dabe loolu waral ma indi la fii nii sax parce que dafa bëggoon ñu waxtaan man ak yow parce que mag yow fu ñu jaar dafa dafa dafa dafa bëri danoo yàgg man ak yow hmm. waaw te loo gis lu ne rek am na lu ko sabab waaye yàlla daa dogal bi may jógee dëkk ba di ñëw Ndakaaru benn waaw di ñëw Ndakaaru di ñëw Ndakaaru hmm. liggéey moom fi hmm. mu métti lool ma nekk ci liggéey ndax ku ma xam liggéey nga ma xamee nekk ndaw buy daan dooleem ndax ndaw bu bëggee ëllëgam jag wala mu ñoŋ day nangoo liggéey te man ku ma xam xamee ma ci liggéey bi ma ci nekkee nag ab diir yàlla dafa dogloon ma dem bitim réew. yow mi demoon naa bitim réew amaana loolu dama la kaa nëppoon. Kenya Burkina Faso. maa ngi woon Paris. ah dëru nga jël bi ngay dem <laughs> yoroo paas. <laughs> avion laa jël. avion wa mudu nga bal hmm. mudu man dama laa yar hmm. xam la dëgg la xam fi nga juddo xam sa palmarès sa réputation mudu ba ngay gone ba ni nga màggee bo ma sante jangé école sox mburok to monoko wona jënd mburok diwlin rek hmm. sa kay leçon yépp nin mbat ah phrase yépp jaxaso bo ma sante observation diwlin na ci top nin mbat ci top observation notre corps notre nen mbat noo def nga fàttaliku genre genre affaire yi <laughs> moo tax sa lii def maa jaaxal waaw mbay dëggantaan jaay bul mën na bu sa mbokk laa wax ma carrément fan nga jëlee sa alal ji waaw boo tey rek naa la wax de man fi nga jaar ba ba ba yàlla ba nga téye nii waaw moom laa lay wax xam nga biru yàlla baru yamba dede muk muk baru muk muk muk man liggéey rek la xam bo ma deglu rek na la expliquer ba nga comprendre bo le tay mom dama contane hmm xam nga kër gi wu nit moo tax la fekk moom nga fiy ñëw fan yi kontaan naa si trop rafetlu naa ko aussi parce que su fi bànneex nekkul yaa ngi wéttali donc mun ma def du rafetlu ko. kontaan naa. waaye ki ne. naa. tànk yi waroon ñëw ak tànk yi bokkul. mbaa jàmm la. jàmm la du jàmm. allez dis-moi. Kine ma dikkee wax na ma lépp lu mu la wax. xamal ni ma dikkee lu yenn si moom fanaan ci man. d'accord mais lu mu la wax. li koy xañ sa bopp du yoon. moo la wax loolu. Kine ak lépp lu ngeen jotee yi ñaar bépp problème bu ngeen mënti am bu ngeen nekkee seen biir néegu sëy mën ngeen ko waxtaane mais sëf nga koy xañ sa bopp te yow sax Kine est-ce que xam nga lan la lislaam wax ci loolu. Hmm? كني دلول فنغا نيكول ياغي بغا شانجي نك اسكو ياغ ماي ديك ديغ نالا باي الخيل بو باخ لي مالا واخ بودي نك ني نك تانكي نغا جوكي خاميتو مالا كون باخنا انا صافي صافي دافا بوجي انا خالي ماما قال لي ما ген نان سانكا من اوما توكاي دو تو نهار اني لو باخنا ميرسي safi bu ñëwee ne ko ñëw naa fi da nga bàyyi xel baax ma la wax njuumanoo sant mu ne wele boole yaa dans seg eyes Gous ngam. <laughs> ya taxawé taxaway yëkkindi no né man ngay dëkk <laughs> ba neex man la yëpp ya, wala mu bay fi ñep neena yow bolé yow lay kalamé nga ngem bu ñëw jàkkaarloog man à tout moment mëna la <laughs> teur nga wacc ba neex yabuma ay bànd gi ci man du ko réré taxaw oh. guus ngaam ak ngamara na man nga ya, yedd yalla lo waxon rek mom dina ko ci biir yalla dogalé ma dem bitim réew nek fa comme nima fi Sénégal di liggéey bima démé fa dama ko yok ndax dama gëna sori mbokk yi xam li ma fa yobbu xam li ma bëgg xam li ma bañ mu metti won lool mm-hmm. ma muñ ko mm-hmm. ndax tukki da metti mm-hmm. metti lu ne lañuy daj fofu yalla dogal ma xamanté fa ak ay tubab ay euh ma collaborer ak ñom ñu nekk samay partenaire ma indi len fi Sénégal ñom tubab yi ñom tubab yi investir ci walu immobilier xam nga lu immobilier manam walu tabaxé yoy ñom ay bâtiment ay bâtiment ma ñëwee nag investir fii Sénégal lu bëri bëri na immeuble yoo xam ne wala appartement yoo xam ne man nii maa moom man moo immeuble yi may séen fii yu bëri yaay borom yu ci ëpp biir biir Sénégal rawatina Ndakaaru man maa ko moom loolu la yàlla dogal waaw del yaa koy fay de waaw ne yi <laughs> bëri nañ bâtiment yi ne ci réew mi fii ci réew mi man Modou maa ko moom kàttan yàlla. yow Modou Mburok Tom mii. <laughs> waaye nag. naka yéen a yaay reer wala man yee bi laay laal dafa neex a fay pompiteer rek. lii tàmm naa kilo bi la bi neex naa fay. lekkal ndawal yaa tax ma jënd bi yàlla defee loolu nag. waaw. ma ñëw Sénégal. Ah. comme mooy sama réew. nit amul fu réewam. Mm-hmm. ma ñëwaat. jëlaat lépp delloo siwaat ko fii investir créer entreprise mooy wàllu immobilier ba man loono nekk ci ba yàlla defal ma ci taw féex waaw guddiñ toll nii nag suñu borom dénk na ma alal bu bari waaw boo gisee sama melokaan bu njëkk ba bi ma ñëwee di jaay café dama doon xool nit yi lan mooy seen réaction lan mooy seen attitude boo yorul ak boo yoree fu mu toll ni man fu ma génne teel Modou ñëpp ay daw song ma ñi ma doon maanaam ñàkkal kerse sax ñaari loxo lañ may néew waaw baa xam nga ne fi ma toog may rey <laughs> dogaloon na nag mhm. jotoon fee am soxna yow mii waaw am nga fi jabar fii am naa fi jabar waaw maa ngi moom mais ci tàggoo la ñu gën a jege waaw ndax euh, kooku dama ko defal lu ne ci ay digg nawlem ci ay digg mbokam mak la xalé la tax na fuñ toll ni mak mom ci divorce lañu gëna jégué daal xam naa ne fa mujjé ak mom dama koy mujj bàyyi dama koy mujj bàyyi bo amé do xam ku la bëgg wala il faut nga ñak mhm. am jaar-jaar mhm. il faut metit am nga soga mhm. xam ñela sop ak ñela sop jaar-jaar mais fek am am sa kanam do xam ki la bëgg do xam ki la bañ deug la aduna nak lepp njangat deug la waaye bala maa xam ne am nga alal de. Hmm. <laughs> nga di ma ko dóor. naan ma mbay wan birig. two birig. tri birig. ma xam ne yoon nga nag. je vais te donner beaucoup de millions ay palaatu de millions. dama lay financer yow. ndax yow. li ma lebal su ma la ko fayee dootoo ñàkk. Hmm. bu dee li ma la lebal nga ma bëgg fay. Hmm. bàyyi ko def naa ko gratuit. lu waral loolu. <laughs> li ma la lebal dara baaxu ci li. man fàtte naa loolu du ma jàpp. j'ai déjà tourné la page. jërëjëf loolu fàtte naa ko. tourné la page tourné la prothèse. waaw <laughs> jàmm am. waaw waaw waaw Mbaye ana Capa Coli. waaye yow Capa ngi fi. Capa Coli de mi ngi benn xarit bu nekk Amérique. Hmm. ku baax. ndeysaan nee na dina ma dimbali ma jëndaat benn fas. ñaari fas ak baax. mais na la leer ne maanaam coono yi nga amoon yëpp wala yi nga doon daj yëpp ndeysaan jeex na tàkk bés ñu anak bata yaay fay de may fay ci ka nee naa la bu la resto bi yëpp man daal xam naa rek ah dem sangu ci julus lu ci la lan ngay di ki ne baal ñaari minute ma ne yow sa problème lan la ba su waxe yow rek nga bañ ma faale fan yam lan la lo xew mbaa jam la xam nga lan moy problème dedet yow yaay problème bi problème bu am ci néeg bi lan lay def ci biti biti jëm fan yow man ak yow war nañu joté ngay genn di koy dem waxi sa xarit pour quelle raison moom laay sëyal wala yow laay sëyal <laughs> loolu nga mer nii Guinée hmm? euh, ma xamal la benn mbir boole man ak ñaar kenn lañ te gis nga lima la waxoon fii ci loolu laa nekk duma ci daw dara li la waxoon foofu laa nekk ba euh, kër gi fi pour te nit buy sëy nag am na loo xamante ne waru ko di mer di mer di mer jëm ba kañ kon li ma wax boole moo tax nga mer ni ti ma romb soo ba léegi ba ñoo xam man ndax dangay nga boole jàmbur la ca man boole du jàmbur ci man de li am boole di këram mu koy naqari moo koy wax noonu laa waree am lu ma naqari ma waxtaan teeg moom mu bëgg lu rafet ñu wax la ko loolu moo jar bi. wax nga ko boole sa xarit la yow mais lu sama xarit. jox naa ko nag cër bi ma wara jox yépp mais xam nga lan la dul nangu man ak yow ñuy jote ngay genn ci biti diko fa wax nit ñi di ma juger fi nak li fi xew fi la xewé man ak yow ñoo koy lijjanti mais kenen du ñew dina ma ni ngay défé wala nenen ngay défé yow problème bo xamné yow kassé la concerné am nga droit nga wax bolé parce que sa meilleur ami la mais lo xamné man ak yow la concerné du man nangu nga koy genn ci biti lolu mom def ko sa bop ndax duma ko pourra ki ne man sa la gis nga respect bi ma la jox ba du ma wax ak yow di yuuxu te ma mën ko respect boog na ma ko delloo man du ma sa xale boo xamante ne dangay wax di yuuxu à n'importe quel moment li ma la wax nag wax naa la ko mer dafa am fu muy yem li ma wax nag boole moom moo la naqadi nga yaakaan dama dem di boole boole wu ma la boole de amul dara lu may boole boole waaye nag am naa droit dara naqadi ma wax ko boole loolu moo la naqadi. Hmm? li nga wax doo ci jóge man tamit li ma wax. duma ci jóge te li ma wax du dañ déggoo xanaa li ma la wax li nga fi wax ni duma ko pourra un point six mille trait duma ci dellu voilà olof nag li mu leen bu dëgg la wala nga xam-xama di xaw laa gaañ ah. euh, mais fii tuwaadaloo ki dort Alima la moo la sama yére su ma ko tegee fële nga koy seppi booy fóot. yow lay ni nii sa yére yi maa ko seppi da nga sol simi du tilim nga doo ko si fon bi moo Alima wuyu ma man du ma sa morom sa mag laa. waaw si amee dégg sama yére bu ma ko tegaatee fële nga fóotal ma ko bu mu fóotalu fii kan moo may fóotal. xoolal déglu ma soo bëggee ku nga sonal. ah tamit. léegi bu daa sées nga sama ñaaka takk loolu yaa ma

instant déjà def ma dara kon jox ma yéré non naa la yow si prison bi bu bëgguma la sonal. man sa tante laa non kër gi ñun kasse fi nek donc def ma dara mun naa la fóotal yére garaaw. am problème t'inquiète pas. ok. Alima yow ki sa mag la de bu la waxee fóotal ko do fóotal rek lan moy sa problème. naa leer na nag tey rek laay fóot yeneen jour yaa ko fóot de. baax na naa ko def. bon nag mën naa la ko fóot. <laughs> Iya. Momo. Wow. ali mana fango koy comprendre da parce que xelu xale aussi da koy japp ali mana fa rew ali ma warna ko fotal ma muy seppi sama yere lu mu tek ko fan waaw yow oh, tamit la nga mer yow bu ñu lay fóotal doo neexal da ngay jékki saa rek di Alima sama rakk la su ma ko santee def da ko war a def. ah sa rakk la mais cela ne veut par exemple tey jii nii yow boo ko santee foofu da ngaa war a yooxu doo neexal amoo jabar <laughs> faaw nga muñ a am am am ak sama jabar wala ñàkk jabar. instant kay yow yaa jabar tamit nañ waxante dëgg. ndax yéen da ngeen feebar quoi pour yéen àdduna bi yëpp ay bokku jabar la wala kii jabar man saa sax dinaa takk. ne vous inquiétez surtout pas. naa takk xale bu pare mm. sax <laughs> waaw rek. indi ko fii bu may mm. fóotal. di ma paaseel di ma toggal lu neex. yàlla baax na. façon daal moom soo bëggee dara da ngay neexal te yaa ngi ni sa yëre yi tili ma tilip yow nga naqaree fóotal. Alima moom temps yi moom ni mu nekkee si kër gi loolu foog sama yaay wax si mère moom bu ci waxul. Maman oh. waaw. lii lan la. lan loolu. loo jël fii. singom singom bi laa mutafi bañ mu taf singom la. singom man gaya waxal de. ci lan noonu. du ma xale li nga jël xam naa ko baax. je disais Alima moom nu mu nekkee ci kër gi loolu foog di ci wax. waaw ah, mais singom la da nga bëgg a mool singom la xanaa gëmatoo. Hmm. en tout cas lu ma

yaaw ndekete mën nga fete lii lépp. <laughs> maa ngi fete. kan ngay fóotal nii. Momo de laay fóotal. Momo doo bàyyi kii mu def yi fi góor bu tukkee wala mu takk jabar jabaram pa nu muy def. ah. ah? Momo de moo ngi nii rek. bàyyil kii mu fóot góor dafay fóotal boppam ah. eh booy yow laay waxal del fóotal sa bopp del fóotal sa bopp. Ah, yow ndekete mën nga fóot rek laay ak noppalu. xoolal fii garage bi gis nga ko. dina ko wut bunta bu mak bind fi fa gay balance yi ngay fot di fete di wer mu yow. à tout moment nag mën nga dégg naka yaram bi. mo dara dula jot baye tapale gi baye tapale gi dara dara du la jot. <laughs> baax na. Eh, ah, sam tan dañ doon kafoore comme des gens normaux yu génération rek. xam ah, mais man man damay damay damay gént wala dèjà nga naa ma mag sa tante ñoo bokk ay génération wala da nga fàtte kii sa jabar papa la. eh xam sa morom sa baay laa kii sa jabaru baay la que ça soit première fois et la dernière fois ngay toog moom toogaay boobu dend moom naan ay sama tante nan nga koy wax ah. eh man du ma sa morom ah, sa baay laa te kooku sa jabaru baay yaa ngi dégg li may wax damay dox si soxla waay. waaw <coughs> ah, sama tànn dañoo bokk benn relation.